mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen yi dalal yéen ñi seetaan Sénégo suñu yeneen plateforme euh, Facebook Twitter Instagram ñëpp euh, surtout ak seen site officiel di sénégo.com di seen kër euh, ñu ngi leen bi nuyu nañ leen ñu ngi leen di ziar bu baax a baax surtout sama mbokk mbër yi nga xam ni ñoo nekk Europe Amérique Asie Océanie Afrique ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu démb rek ñu ci bëri maa ngi waxtaan ak ñoom ci euh, actualité làmb ji alors Bourtane tey la ñu la ñu la ñu la ñu dalal soldaaru Pape Diouf nekk agent de sécurité garde rapproché bu Pape Diouf nekkoon tamit mbër den waxtaan lu bëri ci wàllu làmb ak li nga xam mooy ci wàllu sécurité diggante moom ak kii di euh, njiitu génération. conscient moom lañu hmm. voilà di di Pape Diouf l'international ñu ngi koy nuyu au passage Pape xaaraat ma maa ngi ñëwaat ñu defaat suñu appui avant yi ñu doon def mon ami mon frère alors buur ma bàyyi la nga nuyoo ko askan bi ñuy seetaan waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna mm-hmm. euh, maa ngi nuyu ñëpp mm-hmm. di di nuyu waa Sénégal mm-hmm. di nuyu suma frère Seydina di nuyu waa àdduna yëpp di nuyu suma mag suma papa suma xarit Pape Diouf ak waa génération consciente ñëpp di nuyu suma famille suma yaay di nuyu suma frère de valeur Papi Omares mi nga xam ne moom laa àndal fii maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax xam nga waaw di leen sant di leen gërëm ci invitation bi merci euh, buur yaa ngi nuyu léegi Seydina Seydina yéen ñaar loo leen bokk da ngeen xaw a nduróo quoi da ngeen tolloo da ngeen nduróo <laughs> non non Seydina moom suma frère la naa suma frère la eh. moom daf ma bëggal boppam eh. Euh, fu ñu tasante ci ay événement Pape war fa ñëw. wala fu ñu gisante day bàyyi lépp. ñëw saafonte ak man échanger ak man. sama relation moom. dafa yàgg ba pare bu nekk nit ku baax quoi. nit ku disponible aussi ak booy bëri wax tamit. non non non naa moom suñu frère la. <laughs> alors Bour euh, comme ni nga ko waxee ah ay frère ngeen euh, yow tamit su ma suma frère nga lu yàgg la quoi. Mm. mais alors tey Bour lan lan moo gën a motiver Bour Tane mu bàyyi làmb nekk agent de sécurité nekk garde rapproché premièrement lan moo la poussé nga bàyyi làmb waaw xam nga xam nga euh, àdduna moom mm-hmm. euh, nit ku nekk dafa am destin mm-hmm. te man suma destin defe naa ne làmb làmb def ci bokkoon mm-hmm. donte que ne bàyyiwuñu làmb carrément sax mais làmb dafa nekk suñu xol mais euh, boo gisee ma bàyyi ma jóge ci làmb ñëw ànd ak kilifa gu mag ci Sénégal ànd ak référence ànd ak euh, nit koo xamante ne Sénégal ñëpp ko respecté muy Pape Diouf boo gisee ma bàyyi suma làmb ñëw ci moom du tey ndax làmb tamit aussi euh, sport suñu sport national la loo xamante ne tamit euh, metti na neex na metti na mais aussi dama ci jaar def ci sept combats cinq victoires ñaari défaite. loo mujjee défaite nga mujjee bàyyi. défaite laa mujjee bàyyi. da nga découragé woon wala. non non du découragé. Mhm. xam nga lu tax découragé wu ma. Mhm. mooy mënu woon dem di entraînement écurie ba. Mhm. Pape Diouf xam nga dafa nekk nit koo xamante ne euh, force tranquille la. day day day war a jouer ji fenn. concert wala dara. man ñeemantal naa. dem di entraîner écurie ba. ko mu demal bàyyi ko moom mu demal boppam. ndax dafa nekk loo xam ne comme trésor ci man. Hmm. loo xam ne comme trésor. Hmm. Hmm. mënu ko bàyyi mu demal boppam. ndax tontu que ne ñëpp Sénégal ñëpp yéene nañ ko jàmm. ñëpp ko bëgg. waaye wóorul. ma dem ba xam ne nag. sa xel daal du dal bàyyi ko moom kese mu dem yoonam. donte que ne am na ñeneen ñu mu doon àndal. waaye dama ko ñeemantaal ba wóoruma ko wóoruma ko ak kenn waaw waaw loo xamante ne wóoruma ko ak kenn. moo tax ma daan bàyyi suma. moo tax ma daan bàyyi suma suma entraînement écurie ba dem di bu amee événement ba dem topp ko mbëggeel moo jiitu suma digganteek ak moom loolu moo taxoon ma doon bàyyi suma entraînement dem mhm. waaye avant ma koy avant ma koy fréquenter mhm. jël naa ay drapeau ci mhm. làmb ñëw may ko soxnaam ndax ba mu dafa ñëw daf ñu yar moom ak sumay nijaay la woon biir ko ñu bagaar ci ñaari tali ma nekk xale di jàngee école école depuis hmm. di ànd ak jarbaatam bu ñuy wax Pape Biram hmm. ak Tata Fall yi hmm. ñoo Biram moomu ak Tata Fall yi ñoom ñaar ñoo rawoon classe mais su ma mosaan suñu mosaan génn récréation man daanu moon dem suñu kër directement dama daan dem kër ñoom Tata Fall ak Pape Biram ñu dem naan ndox ñu jël seen ndékki bu ñu génnee ci bunt bi ñu taxaw ci palanteer bi bu ñu taxaw ci palanteer dañu daan dégg Pape di way bu ñu masaan taxaw ci palanteer bi dañu daan dégg Pape di way mm-hmm. ñu déglu tuuti. Mm-hmm. yaayu Pape yaayu Tata Faali wala yaayu Pape Birame génn dàq ñu jàngi. Mm-hmm. ndax moom moo ñu yar. nekk suñu papa nekk suñu lépp. ba tax na aussi man sama bopp ma jóge ci li nga xam ne mooy euh, làmb ñëw ci moom. mooy drapeau mus naa jël drapeau jox ko soxnaam comme ni ma ko waxee tout à l'heure jëlaat amaat ay ay bés. bés ma war a liggéey ak moom. mu jël mu ne ma demal entraîné ji. nga dem boo ñëwee li nga fi war a am di nga ko fi am. demal entraîné ji nga dem bëri ji waaye li nga fi war a am di nga ko fi am. te su ma mosaan ñëw li fa nit ñëpp di am loolu laa fay am. damay ñëw fekk fa sama cachet. fekk fa sama transport fekk fa suma lépp. Hmm. dafa dafa mel ki euh, wax nga ko mbëggeel la sentiment boo am ci moom ñeewantal boo am ci moom. Hmm. donte sax ñëpp bëgg nañ ko. Hmm. mën naa génn ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm. moom tamit day entraîné nag. waaw ma wax ko gars la bàyyil boppam. Mm. ku dal ci kawam am nu muy demee bu la tëggee mbot wala mu dóor la arrêt. Mm. da ngay wàcc. lu leer laa man xam naa ci dara. <laughs> man xam naa ci dara yóbbu na ma à l'usure. alors tey mm. est-ce que mën nañ wax ne Pape Diouf su ma déggee li ngay wax noonu dafa am lu leen boole loo xam ne du musique du làmb loo xam ne lu yàgg la. waaw Pape du ñu boole du musique du làmb. Pape suma papa la. sa papa sa papa ci nag papa comme nu ma ko jàppee pap mooy. Mm-hmm. moom ak sumay nijaay la woon. Hmm. ko ñu bagaar sama kër maam. d'accord kër jénneen hmm. yaayam dafa faran fréquenté. Hmm. mook sama maam. ak suma yaay. kon loolu lu yàgg la. kon famille lañu. mbokk dugg na la. kon tey bu yàlla dogalee man dong ñaari tali. ma nekk fa xale boo xamante ne. ma jege ko. ñuy ànd ma bëgg ko lool nag. mu yar ñu. biir ñaari tali. xam nga kon. yàlla dama xam dama dama gis ne suñu ànd man ak moom euh, destin bi yàlla moo ko. waaw ah, suma destin la bokk. yàlla moo ko dogal waaw yàlla moo ko dogal. dafa am lu passé lu passé loolu ñëwaat tey boole leen. waa boole ñu waaw ah. man noonu noonu man laa ko gisee. kon loolu moo indi ñeewantal bi ak sentiment bi ngay am ci moom ça veut dire que li leen boole du hasard. non du hasard. Mm-hmm. ndax xam nga nit dina la yàlla dina la booleek moom. Mm-hmm. pour defar sa àdduna. waaw man yàlla. benn nit rek lu mu mënoon booleel ci àdduna mu defar suma mu defar suma àdduna mm-hmm. te du te du wax ak man mm-hmm. du jëf du xuloo ak man mm-hmm. du du wax ak man wax ju bari muy muy Pape Diouf yàlla ci àdduna ci naka waaw dafa li mu defaree suma àdduna mooy xam nga nit ku ci nekk dignité mooy àdduna waaw mooy àdduna nangu naa dignité mooy àdduna Euh, na tranquillité mooy nit ku am tranquille boo ñàkkee xaalis sax nga am tranquillité tranquille doo dof da dal no stress no stress noonu la defaree suma àdduna mooy jàngal ma dignité ak personnalité bul gëm kenn gëmal sa bopp bul gëm lenn gëmal liggéey bul gëm lenn même boo amul mille francs sax amal tranquille comme ni ñu koy waxee ci groupe am génération consciente daf la conscientiser yow. Mm-hmm, mm-hmm, daf la mm-hmm. conscientiser. waaw côté boobu côté boobu man. defe naa ne euh, li tax ma li tax ma nan laa ko mën a waxee. Mm. li tax ma ma mën a wax ne. Mm. daf ma jàngal dignité. Mm. en en première. xam nga tey àdduna. métti na métti boo xamante ne. tar na tar boo xamante ne. di nga toog doo yor xaalis. di nga toog doo am loo lekk wala doo am loo naan. di nga toog am ñàkk am ku la ku la dimbali. di nga toog doo gis war a jënd dara war a jënd crédit wala doo ko am. nga war a faj soxla nga war a faj soxla doo ko am faj doo ko am. dignité rek moo la mën a sauver. dignité rek moo la moo la mën a sauver. boo amee dignité ba pare nekk dignité bi nekk ci yow. da ngay tranquille mm-hmm. sa esprit bu tranquille rek. mooy di nga mën a dugg di nga mën a di nga mën a avancer su lu bari. waaw côté boobu nag moo tax ma ne dafa defar suma àdduna. Mm. defar àdduna bi nag yaa yaakaar ay milliards la. non non waaye dignité ak personnalité. mooy tax nga am milliard ëllëg. xëy na tamit mënoon nga saaraan mu mu dimbali la jubbanti la. jubbanti la uh-huh. côté boobu laay waxee waaye daf lay yar te du wax ak yow. Uh-huh. daf lay yar te du wax ak yow ndax ni mu lay yaree te wax ak yow mooy day bëgg bu fekkee da ko bëgg mu doon dëgg ci yow. Uh-huh. mu nga bëgg ko lool. amoo ci sago. da xool moom ni muy doxee. nga doxee moom te dama gis benn affaire ci moom danga nga ne da lay yar te du wax wax ji bëriwul. gis naa loolu force mm-hmm. tranquille bi nekk ci moom mm-hmm. dama gis tamit benn Pape Diouf boo xamante ni Pape Diouf boo toogul ak moom doo xam caractère am waaw ku nit ku am caractère ku am fulla ku am fayda la mm-hmm. te tamit ku mën a waxtaan la ku mën a kaf ak doomu aadama dëgg la te toujours foo leen waxtaanee rek il faut mu am lu mu la wan ci affaire àdduna waaw loolu boo gisee mu nekk ci moom yàlla moo ko yaral boppam ginnaaw ñaari waajuram yàlla moo ko yaral boppam li tax mu yaral ko boppam mooy baab man mii wallahi azim paap tooñ dama koy tooñ chaque jour cent fois chaque ay cent fois mm-hmm. ba suba du ma lii du ma ne lale mm-hmm. waaye man mm-hmm. amour bi ma bëgg bi ma koy bi may bi may sentir envers lui mooy tax damay dem ba benn instant ma ne man euh, kii may tooñ te waxuma dara gor la kon man waratuma jàkkaarloo moom di sëgg. dootuma ko tooñati. xam nga lu tax. mooy nit ku am fayda te bu de bu la waree wax dara daf lay woo ba nga ñëw mu dugal ci néegam. buy wax ak yow day mel ni musul doon moom. beneen nit lay doon. mais nag nit ku ci nekk dafa am ay principe am fulla am fayda sa bopp. xam ni kilifa nga. côté boobu laay waxee. moo tax nag man ci loolu. laa ko nawee respecté ko ci loolu. moo tax chaque jour may may ne. day ànd ak gis nga tey. Euh, ñu baal ma ci wax ji. faw ma neeral point boobu balaa ñuy bouger. waaw ok bismillah. gis nga damay gis ay des fois nit ànd ak kilifa nekk ci télé. ne diw fayu ma sama xaalis. wala diw daf ma ameel. wala diw daf ma war a jox lii. wala sama patron fayu nañu jox suñu xaalis ni ak ne. non man dunduma loolu. man bokk naa ci garde rapproché Sénégal fii. waxuma la à part président de la République ak ñu nekk présidence. garde rapproché bu gën nekk à l'aise avec ak patron. waaw mm-hmm. ah, bu la neexee parce que sa mbokk la parce que yàgg na parce que tamit xëy na nit ki la yàlla booleel la. tamit waaw dëgg la dëgg la xam nga tey. nit nit yoo xam ne tamit meluñu noonu xëy na euh, toujours dañuy nekk euh, ñoo xam ne am divergence ak ñi leen wër tamit. loolu mën na nekk waaw léegi mais xam nga tey. Mm-hmm. li fi côté bi may waxee. Mm-hmm. damay dégg nit ñi di wax. waaw diw war na ma fay suma xaalis war na. ok yow loolu dama ne man daluma ak moom ak paap xam nga lu tax du dal. Mhm. mooy dafa xam àqu doomu aadama. Mhm. xam tarbiwu. Mhm. xam àdduna. xam nit ki bu liggéeyee balaa ñaqam di fenn nga jox ko xaalisam. lu mu yee lool man ak moom man ak moom xaalis boolewuñu. su ma liggéeyoon suba ba pare. dem sama yoon. te joxuma cent franc suba bés boobu laay doog la la la gën a ñëwaat. ok boobu boobu leer na. Mm-hmm. ci li nga wax noonu force tranquille bi caractère bi ak ni mu xamee ak doomu aadama. Mm-hmm. mais man xam naa leneen ci moom nag moom si Pape Diouf. Mm-hmm. ci te loolu moom su ma ko waxee moom moom. da taf sa gémmiñ. loolu xëy na xamoo ko woon ci moom. ak bëgg baas. ak a nopp bébé baas <laughs> loolu moom maa nga waxal sama bopp. waaw eh, ma loolu maa nga waxal sama bopp loolu dañ koy jaal rek. waaw non xam nga loolu moom. benn benn benn kii bu ma koy xoos la moom. waa mais loolu mënu ma ci mënu ma ci jéggi te du ma ci wax. Uh-huh. su ma ci wax su ma ci jéggi su ma ci su ma ci waxul rek. la grande dame ajaratu bébé day wax day uh-huh. day mel ni leneen la. Mm. xam nga Beps moom. Mm. Euh, suñu yaay la. Mm-hmm. Mm-hmm. te nit ku jàppale jëkkëram la. Mm. nit ku fonk jëkkëram la mbokk si yow mi mbokk nekk mbokkam nga bokk ak moom ndey ak bàyyi nga nga am noo mel ak jëkkëram te neexu ko mm-hmm. te dafa naan ñukk dem dem dem wuy jëkkëram xam nga lu tax mm-hmm. euh, comme ni ma naan yàlla daf ma booleeg paap mu defar suma vie mm-hmm. moom yàlla noonu la ko booleeg paap paap yàlla noonu la ko booleeg beps kon ñoom seen vie noonu la waroon demee bëgg mu nekk ci moom nag kenn mënu ko naatable ba tax na suñu amee événement sax jabar ji balaa paap naan bërët pour jóg ñu am comme tey suñu événement yi ñu war a def euh, le le 3 juillet fii ci Radisson mm-hmm. maa ngi jégalu ci publicité bi xam nga BEPS jaay na table yëpp mm-hmm. avant jëkkëram di so di di sonn pour jaay dara mm-hmm. BEPS jaay na table yëpp waaw kon dañ koy remercier foofu di ko ñaan yàlla yàlla yàggal ko parce que man dama dama gis dama fa mm. ñëw damay mm. dama nekk ci kër gi ay waxtu yu bëri lu bëri jot naa ko ràññee xam nga man ma ma yar am na yu bëri yoo xam ne dafa koy seetlu mm-hmm. mais femme bu baax la femme bu mm. bëgg jëkkëram bu ko respecté tamit et puis bu am yar la bu am kersa si doomu aadama loolu moom xam naa ko ci BEPS moom noonu dëgg la ah ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci waaw waaw mon frère xam nga boo gisee loolu moom euh, ma ci ma ci chaque jour ma ci bàyyi xel amatuma droit def erreur suma àdduna loolu nag dama xaw a seetlu ci yow de. wallaay <laughs> dama gis ne da nga changé dama gis ne da nga changé quoi <laughs> dañ la defal lavage de cerveau man pour man am lu ñu naan lavage de cerveau nga changé te pourtant nag <laughs> ah. non da jooy. du loolu sax xam nga xam nga lu tax. Eh, ndeysaan aw kon da ngay jooy di. aw de nga jooy. non. <laughs> Ah, buur a ngi jooy di non <laughs> sëy naa <laughs> buur a ngi jooy di. dafa am fu la jëlee quoi fu la Pape jëlee yóbbu la fu sooy ndeysaan macha allah ñun xam nañ ko ndeysaan. may ko may ko mouchoir may ko mouchoir ma jox ko serviette bi rek sànni ko ko ndeysaan euh, nit ku baax rek mooy def lii nit ku baax. boo nekkee ku baax mu jubbanti la teg la ci yoon bu baax da nga xam ne teg na la si yoon bu baax euh, mënoon nga mel neneen mais da nga baax sa xol dafa baax sa xel dafa baax tamit parce que sa xel bu baaxul woon kenn mënu la def loolu baax kenn mënula la jubbanti mais sa xel moo baax te da ngaa bëgg a baax macha allah yàlla na la yàlla jàppale yow ak ki nga xamante nii jàppale na la bu baax yàlla na leen borom bi gën a jiboole Pape Diouf euh, mais remercier ma man Pape Maguette Ba maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax euh, te continuer lool Pape Diouf bul bàyyi bul bàyyi sa loxo te ni nga tuddee sa groupe c'est très important génération consciente yaa ngi conscientiser ay nit te sa fulla ak sa fayda ñun xam nañ ko tey gis nañu li nga xamante ni moom mooy génération consciente li mu def ci soldat Pape Diouf eh buur nag xoola bàyyi sa waay ab jàmbaar ab <laughs> xam nga eh. xam nga moom xam nga pour terminer. Mm. waxal dafa am mm. nit fu mu lay jëlee mm. teg la fenn dafa am foo xamante ne mënutuma wax wala mënutuma def loo xamante ne duñ ma pardonné xam naa kenn du ma pardonné kon bu fekkee ne moo tax des fois damay gis gars yi dama bàyyi làmb lii mm. li ma am jamono ji mu mm. mu làmb dara gënu ko mm. waaye moo gën a làmb li tax mu gënal ma ko mooy comme da nga wax sànq ne da nga gis violence ci làmb su ma ci nekkoon mun naa continuer yor jikko bi ma yoroon jikko boo xamante ne kenn du xam diw ban façon nit la waaye yàlla bu la bëggee defar du la joxo jox loxo wala di ju woo daan la buuru tan defal lii. Mm. daf lay booleek nit ku baax. Mm. mu teg la ci yoon. waaye boo gisee moo demee noonu. Mm. mooy damay sant yàlla bu baax. pap buggul ma am benn problème. buggul kuy liggéey ak moom am benn problème. buggul ak kuy liggéey ak moom am benn problème. des fois dañuy génn wallahi azim génn dem dem Thiès fii Thiès su ma ñëwee damay bëgg a ñibbi su ko neexoon bañ ko ci fekk. day yëkkati presque suñu demee Thiès mu yëkkati presque diggante 30 minutes nga dem Thiès ñëw ñu yëkkati 60 mille wala 80 mille yëkkati jox la ko ne ngay wax mu ne la noppil nga nga juge fa juge fa laa la wax de ci ci fi nga nekk ngay ñibbi sa kër mu woo la ci yoon bi ne leen retourné nga retourné nga ànd ak moom Grand Dakar retourné waat fàtte na lim la joxoon yëkkati waat beneen 40 wala beneen 30 mille joxaat la ko. na may woo ñuy ànd kon. xam nga lu tax. ma may benn une xam nga lu <laughs> dafa xam àqu doomu aadama xam nit ki dafa bàyyi léppam ngir moom ngir ngir nit ki te topp ñu ko ngir alal pap ah. si ñëwuñu contrat ne dañu war a fay hmm. si ñëwuñu contrat ne dañu war a jox lii si ñëwuñu contrat dañu war a jox lii si ñëwu leen dara si ñëwuñu benn xam sama papa la dañu war a dem voyage suñu voyage daf ma war a yóbbaale su ñëwuñu ne buy dem Europe daf ma war a yóbbu su ñëwuñu contrat ne buy dem fenn daf ma war a yóbbu déedéet comme papa nu muy yaree doom noonu la may yere comme doom li mu cër bi mu am ci papa. di ko liggéeyal travail bénévole. te moom xoolul ne liggéey boobu bénévole la xoolu ko de. day jël ay moyens di ko teg ci table bi. kon soo laalee loolu. su fekkee ne man góor laa. su ma su ma xool day day day day fees. waaw je maa ngi jégalu nag bu baax a baax moo tax si boobu noonu may teggoon tuuti pour détendre un peu atmosphère bi mais am na keneen koo xam ne tamit euh, am na témoignage bu mu def ci ci ci diggante moom ak Pape juuf muy ndeysaan ci nekk ci kër ga. Hmm. di fa liggéeyee ndeysaan kooku tamit bëggul mënul sax xool Pape Diouf. Hmm. ah muy ku xees ka fa. ku xees waaw jigéen waaw dëgg la dëgg la mënul sax xool Pape Diouf. wallaay dëgg la maa ko témoigner sama kat parce que dama ko seetaan télé. mu wax bi ma ñëwee ci kër gi ma mm. xool ko ree. Mm. mu xool ma ree après dafa daw dafa am sax ker xool Pape mais non xam nga Pape Diouf sax du xool. Pape Pape dalay yar te du wax ak yow. Mm, comme li ma la waxoon sànq dalay yar te du wax ak yow. ba ci ay rakam. ku mel ni bàcc. xaadim fàllu ñëpp ñi nga xam ne comme li muy def ci man. da leen di yar te du wax ak ñoom di gërëm passage suma mag Xaadim juuf maa ngi koy gërëm bu baax gërëm bàcc gërëm fàllu Papi Omares Matar Diop suba teel Ibou ñoom Prince Bour Géwél Njambe Guèye génération consciente ñëpp waaw maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax ñoom ku ñu xatal rek nga xat ku ñu xatal rek nga xat ku ñu yaatal rek nga yaatu te benn kilifa rek lañ am mooy Pape Diouf ñooñu ñëpp mu tudd benn kilifa rek la ñu am mooy Pape kon yàlla na ko yàlla defal sutura defal ko defal ko jàmm ndax moom laa gis muy sër artiste boo xamante ne man duma dugg si détail day liggéey sans presse day liggéey san presse xam ko chaque weer dina def di gana gala entre cent mille table un million. ba ci corona bi rek da doon def ay euh, concert en ligne. noonu la demee mu def mu def merci beaucoup mu def ay ay ay ay dîner de gala mhm. yoo xamante ne entre cent mille benn nit mhm. cent mille table un million boo duggee ci salle bi ay trente cinq table nga fay fekk mhm. te presse jàppale ko kenn jàppale ko xam nga lu tax force tranquille la te yàlla na ko yàlla defal sutura may ko aussi ak jabaram ñu am jàmm ba suñu tournée yi ñu war a def mu tournée nationale bi album bu bees bi war a génn yàlla defal ko ci jàmm si barki Seydina Mohamed yàlla may ko sutura may ko wér ak estafam yëpp ak fameem ci barki Sëñ Touba quoi. jaajëf kontaan nañ bu baax ñu ngi koy ñu ngi leen di jaajëfal ci teelu bi. Mm-hmm. Euh, yëppal nañu ñëpp ñëpp def lii na ñëpp olof moom nag nit ñi tey garabam nit ñi tey garabam loolu tënk na lu bari te jaa ngeen jëfal yoon incha allah nee naa sax boo bañ a di nga toog foofu waaw. non da nga doon bañ a jooy yow tamit.